di sant yàlla bu baax di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi di dellu beneen yoon di ndokkeel mboolem jullit ñi ci weer bu tedd bi nga xam ne léppam nga ne la ni ko Mawlana Cheikh radiyallahu anhu jàngale ci ay xutbaam nee na weer la boo xam ne képp koo xam ne yaa ngi ciy sàkku jegeñ li sa borom di def naafila yiw yi yàlla dala koy bindal mu nekk farata naafila yi yàlla dala koy bindal mu nekk farata képp ku def benn farata yàlla defal la ko juróom-ñaar fukk wala lu ko soog loolu bàyyi nettali nañu ko jëlee ko ci xadiis Yonent bi sallallahu alayhi di wax ne weeru koor dafa nekk weer boo xam ne ni ko bàyyi jàngale ci xutbaan bi léegi ñu jàngee imam mi jàng ko alhamdulilah li jaala siyaama junnatan lil muttaqin yàlla moo jël weeru koor def ko muy pakk boo xam ne dafay dox diggante jullit bi ak safara wa shahra ramadana mubarakan lil muminin yàlla def ko mu nekk weer boo xam ne bu barkeel la ngir ñu gëm yàlla yi waaye nag wa marbahan lil abidin mu def ko weer boo xam ne tono la pour ñi nga xam ne dañuy jaamu yàlla parce que loo def benn ñu defal la ko juróom-ñaar fukk loo def ci naafi la ñu defal la ko farata kon dégg buñ ne ne marbaxan la bénéfice la pour ñu jaamu ko yàlla waaye nag bàyyi li mu ci teg mooy wa habiban ila qulubil arifin arif yi ñoom dañoo sopp weeru koor ndax comme weer la boo xam ne daf leen di jokkale ak seen borom te seen borom wax na ne asiyaamu li wa ana ajzi bihi weeru koor daal man la ñeel te man maay fayal kon aarif yi luy sopp ci ñoom mooy weeru koor ndax weeru koor lan mooy fayam mooy jëm yàlla bi subhanahu wa taala ñu ngi ci guddee fa fan yu mujj yi ni ko yonent bi salaay sallam jàngalee awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa aakhiruhu itqun min annaar njëlbeen bi yërmaan yàlla la digg bi njéggal yàlla la mujj gi ngoreel la ci safara ba léegi ci bunt ngoreel ci safara yonent bi salaay sallam dugg na jullit bi léppam mat kooram mat yàlla nangu ko mu ubbil ñu xam ne buñ ko defee yàlla dana laabal ci mboolem rëkk-rëkk buntu lan mooy zakatul salaay wax na ne lépp loo xam ne dal na jullit bi ci ay ñuute ci ay jotaayu moosoo ci ay jëw ci ay loolu yëpp asakaay koor bu ñëwee dafay daal di ko laabal lan mooy asakaay koor ak ci kan la war asakaay koor euh, zaka mu ngi koy ooyee zakatul fitre euh, saa la boo xamante ni ci saaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam arbaatu saat bi mu di euh, borom xam-xam yi tënk nañ ko ci koo xamante ni amoo poti mudd bi nga xam ne mag ñi daan nañ ko jëlee penku di ko indi di ko nattee tënk nañ ko ci ñi ne ñi ne ñaari kilo ñeent ñeenti téeméeri gramme la ñi ne ñaari kilo juróom téeméeri gramme muy 2 kilo cent am na ñoo xam ne wax nañ ne sax mën nañ koo génne ci xaalis ba tey euh, fukkaaw yëpp d'accord nañ ci alaa yitti xaalin daal asakaay koor war na bépp jullit muy góor wala muy jigéen gor walla jaam ñëpp la xam képp koo xamante naal or war na la mu këllëf nga nekk nga majeur ba or war la waree fi tegul sa kaw que koor war na la waaye ki nga xam ne moo koy génne da koy génne pour boppam ak képp koo xamante ni dundam ci kawam la tegu masalan yow yaa ngi nekk sa kër yor sa jabar yor say doom ak képp koo xam ne sa kër gi fa lay ndekkee fa lay añee sax même bu nekkul sa doom waaye ci ñi nga boot la wala fi nga wax njaboot njabootu ci sa gannaaw képp ku boot ci sa gannaaw dundam war la rek yoon bi sallallahu alayhi wasallam ne ne ah kooku yaa koy génne asakaay koor kon asakaay koor duur ne yow sa bopp rek nga koy génneel duur ne sa jabar rek nga koy génneel duur ne say doom rek képp koo xam ne sa kër la nekk di fa nekkee di fa añee di fa reeree asakaay kooram ci sa kaw la tegu kon sopp nañ nag teel koo génne euh, wax nañ ne waxtu génneem mu ngi am na ci ngiru Maalik sax wax nañ ne mën nañ koo génne ci veille bi maanaam bu ñu suba la julli pour miskin yi teel ca jot bañ a mën a xëy di yalwaani wala sax bu fekkee xaalis nga leen jox ñoom ñu mën a préparé jëndal seen i doom ay wala ay dàll yu demee ni ki noonu waaye daal waxtu bi daal warta passé bésab julli ji ci xaruk fajar ba ni jant bu di fenkee ci képp koo xam ne mën na ko waxtu bi daal foofu la yem bi ka jant bi fekkee na fekk bala ngaa julli ji daal boo tardé tardé bala ngaa julli ji na fekk nga génne ko te booy génn di julli ji itam na nga def ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan def génne asakaay kuram ba pare jël ay doom yi tàndarma lekk ko pour wane ne tey moom ooru euh, ngir sant yàlla ndax Euh, bésab weeru bésab kori moom bu daan dem danaan lekk tànn te danaan lekk muy tuur parce que ay koor daal ci gàttal wareef la boo xam ne ñuy tegu ci bépp jullit góor jigéen nag ndaw gor jaam ak képp koo xamante ni dundam yow la yow yaa koy génneel asaka boobu noonu ñu ngi ko xayma ci 2 ne 2 kilos 500 loolu itam mën nga koo xayma moo xam ci ceeb nga koy génne parce que wax nañu ci li ñu koy génne mooy ci lu ëpp ci li ñu dundee ñun nag lu ëpp lu ñu dundee ci Sénégal mooy ceeb ak dugub ci lu ma foog ak mboq euh, wàllu boobu moo ëpp lu ñu dundee ku mën a am cere génne ko ku mën a am dugub génne ko ku mën a am mboq ku mën a am bési ku mën a am ceeb ku mën a xayma kilo yooyu lu mu jar itam nga méggale ko ci nit ku nekk nga boole ko loolu génne ko itam loolu baax na ñu ñaan yàlla mu mottali ñu ñu nangul ñu may ñu yàgg ko or ci jàmm te mu jeexal mbas mi ci àddina bi yëpp at ñu ñoo fekk ñu ci xàll gën a baax ñu ngi sant di gërëm salaamaaleykum wa rahmatullah